waaw treize de moom man maa ko don xaar. Mhm. Eh, semaine bi yëpp pour mu andil ma ya. plainte eh, bi. waaw ci lima ma wax mais xamna ne euh ko. gisagoo ko depuis semaine bi xëy nak da japp ndax deg na dañ ko wuju wujju. te <laughs> mom moom bo buñ la takkalee buñ la wuju nak nag ah, wax deug yalla xamna naa ne di nga tal lu dul di wër di pelante <laughs> waaw xam naa nag bay woo nga gën a góorgóorlu te fecc kanam gi te jéem a sëy sëy bi sinon rek dinaa <laughs> waaw waaw la. dégg dañ koo takkal wujj. booy boo xam ne teres dana ah, takkal nañu ah daa wujj de wujj wi nag moom xam naa nag bañ takk kay nag xam naa ne taluma de. Ah? waaye mën naa mu boole ma ci geer bi mais daal en déglu naa ko guerre bu metti la nekk nag. <laughs> gone giñ ko takal da rafet lol xalaatoon naa ne du ñëw de waaye rek da koy xaar xay nag bu gifé ñëw ci man mais xamna gis na ko dal mu may tontu ah. euh ci ben ben scène youtube ah. mais mom dama man dama xamatu sax lu wedd ba may pelente lu wedd parce que mom d'accord na né yof la nekkoon man yof la wax waaw maa moom bokk nañ d'accord ne kër Moodu Wàdd la. waaw mooy kër gi ma wax même kër gi moom nee na fa la luyee woon. fa la luyee woon man 2012 laa wax ne ko fa la la fekk moom nee na ko fekk. waaw ma ne ko am nga ay kër mu ne man samay am naa ay kër. waaw kon lu ñu werante maa ngi moom fi ne ñoo bokk position bi. yéen a bokk gis-gis li ma wax lépp nangu na ko di. Ah. léegi kay problème bi mooy nee na kër yi dañ ko koo lebal. Ah. nee na banque habitant moo ko lebal. waaw man may wax sénégalais yi est-ce que nangu na xel nangu na koo xam ne 2013. Mm. yaa ngi woon ci kër mel nee na appartement la luye woon nee na man foofu laa fene. waaw garaawut. Mm-hmm. léegi nee na appartement la waa léegi appartement la léegi 13 2013 da koo fekk mu luye. waaw tey jii mi ngi point 1 gii la këram nekk. Mm-hmm. xel nangu na ko. buku ak yeneen keri keri keri keri kër laa yi ma xam. keri keri keur manam fan yi nu jëm lu matul semaine bi ñu dugg. wala ba ca top rek. ta tabaski ni mi ngi bëgg a immeuble bo xamne yow boo ko 1 milliard ne ko jaay mako du lako ko jaay. kuy bëgg a inaugurer. Ah, Cheikh bari yow man mako wax mako wax. sa man duma waxantu. ku neex nag ngay wër di ciow ni rek. ba ma dalee wax ne limay wax borom sir du ko weddi. Hmm. borom costume du ko dindi borom chaay du ko dindi. ma ngi ñi tok li may wax. Mhm. weddi bu la neexee ngay coow nii rek mais mais di ko dindi. treize. waaw. dafa def erreur politique nag. da nga kaa ah, dégg non waa non Baara Ndiaye man du ma ko xeeb. waaw kon xam naa ne xëy na daa am ñu ma xeeb mais man dama koy jàngal politique. moom dama ko dama ko tudd. Mhm. tudd président Macky Sall. ci même émission. Mhm. mu dem engagé émission. raxas boppam ba mu set. waaw bàyyi fa Macky Sall. Ah, bàyyi yi waaw raxasut Macky loolu rek erreur politique bu ko gën a mag mooy day wane ne moom jëmmi Macky Sall ji ñuru ko mhm. wala boog li ma ko waxal moom d'accord na ceeg man waaw mënu koo weddi moo tax dugg ci mhm. ma jàngal ko politique comme ñoom dañuy xebaate waaw gis nga Pastef li muy dóoree Macky Sall di ko bëgg a rey mhm. lii la muy lan ban leader Pastef nga xalaat ngañ dem ba Touré ku la neex xalaatal euh, El biram su lay Amadou Ba nga accusé ko wala nga tudd ko ci télé wax ko dara dale Ousmane Sonko mhm. mu dem weddil bopam bàyyi fa Sonko kenn ñemewu ko bu ko ko tuné won ba def ko di nga gis parti bëpp juk na la yow tay nga dé mhm. te res na ba def lolu mhm. te gisoo kenn ku juk bokk APR sax ku loolu naqari moy APR ci bopam mo amut manam ay kat yu top Macky Sall gëmuñu dara gëmuñu Macky Sall sax mo ci nek te li ma la wax ni firnde la ci gëmuñu Macky Sall gëmuñu ko léegi nag li waaw c'est dit maa ko wax. te amul deltu gannaaw. amu ci dellu delluwuma ci virgule. te dama koy wax ne ko maa ngi xaar ma pelent ma parce que li may wax man bu ñëwee ñu dem ci yoon maa moom. dama koy xamal benn benn affaire nag man xeex ak man yombul. Hmm. waaw yombul waaw. lu tax xam nga moom nee na treize la. bu moytuwul douze lay doon. douze day arrière day wàññeeku. Ah. waaw au lieu treize fay mais douze fay lay tudd. Cheikh Bara yang ngi Cheikh Bara bu xeex ak man ma wàññi benn point bi Cheikh Bara yow gis naa gis naa Antoine yónni na gone Antoine naan waaw man awma kër France maa ko wax am na ko jabaram ak ñaari doomam yu góor yi am ña nga France fan dëkk moo ko moom te Antoine dama koy dollil li gën a dee mm. mooy wat jërul ma coiffeur Jóob la sant du ma ko tudd naa ko bàyyi noonu hmm. ma nga AIBD fa la ko wutal salaire coiffeur Antoine waaw naan may wax ñu naan sëñ Saaliwu ko may kër sañ Saaliwu amul étage di mayeeb étage da ngaa mas a gis étage sëñ Saaliwu waaw mu naan eh, kër gi sëñ Saaliwu ma ko may yow sëñ Saaliwu daa am étage ma mayeeb étage hmm. sàcc tabax kër ba noppi naan sëñ Saaliwu ma ko may <laughs> dañoo war a tappale quoi gis nga Antoine ki ko daan jàngal arab yi arab yooyu muy liifantu waaw ab dëkk la ko jële ci dëkk yi yóbbu ko ba intérieur jox ko bureau di ko fay mu koy jàngal mu koy jox ay arab pour muy gondi kilifa diine yi di nga wax lu mu gëmul hmm. kooka sax da ko wutal bureau bureau coiffeur am ay debe lay liggéeyee président Macky Sall mi ab coiffeur am mi ngi fii derkele chargé de mission la ko def chargé de mission waaw waaw coiffeur Macky Macky Sall ñi dañoo yam nit ñi Ablaye Dieye waaw damay bañ a yëngal këram soxna yu ndaw yooyu mooy soxna yu ndaw yi gaaw a dañ yooyu bi mu ci am na ci benn boo xam ne nii da ko jox euh, salaire AIDB soxna yu ndaw yi kay létt ndaw sa hmm. kay létt ndaw sa soxna yu gaaw a yàqu yi gaaw a dañ rek <laughs> mooy yombalonk yombalonk yi AIDB <laughs> la ko wutal salaire li hmm. ko fay ak kay létt ndaw sa ak këyit ndaw waaw bi mu demee ba décret génn ne ko da ngay dem mu xam bu fi bàyyee lii bu bu ba bu remplacer dana ko gis mu antidaté ko wutal ko fa euh, contrat. Mhm. moog 21 personnes. 21 yëpp am naa seen i tur am naa seen i sant. waaw Ablaye Dieye. nii lu wér laa lay wax. amul benn boo ci xam ne nii góor dina taxaw fii weddi kum neex demal yoon kum neex demal ci plateau yi maa ngi fi toog boo ma ma tontu la boo ma woy ma wuy parce que li may wax leer ñoom dañoo fooyee dëkk bi def lu leen neex sàcc tappale ba doyal ba pare nag bëgg a taxaw fii naan bu leen ko wax may wax mu naan dem leen ngeen dindi askan wi ci seen jafe-jafe yi ñu nekk jafe-jafe yi kay mooy. ay nit yoo xam ne ay locataire la ñii amuñu dërëm. ñu fal leen ñu yor ay millions yi millions. waaw ah. di tëdd ci askan wi jigéen ñi amuñu lu luñ fajoo lekkuñu naanuñu fajuwuñ nga ne léegi loolu loolu wax loolu kay mooy dimbali askan wi mooy li ngeen ñu sàcc ngeen delloo si lu ñu ko ñu dunde ko waaw loolu lañ bëgg mm-hmm. treize mi naan ma demal wax jafe-jafe askan wi waaw na xam ne ci jàpp ko moom nangu nangu alalam ji loolu ci lii ñu di jafe-jafe askan yi la bokk <laughs> waaw loolu laa koy xamal